loi bi dal bi madame Aminata Touré proposé mon, mon, ken mon wax ne loi bi méngawul ak constitution parce que déjà ci suñu suñuy loi suñuy texte amna fi ay ay poñ ay en tout cas yoo xamante ni parce que tey ci conseil municipal nit de loi bi dafa né mono fi tok ak sa jabar mono fi tok ak sa sa frère position mono nek directeur wala recteur wala wala ministre sa comptable nag sa mbokk loolu ay poñ yoo xamante ni pour que ni ñuy yoree alalu askan bi al dong mucc ayib loolu am na fi léegi nag mooy que li nga xam ne nag président de la République da koy nommé est-ce que mën nañ ci tere njabootam jàpp naa ne dañ ko war a encadrer parce que aussi day njaboot gu si ci réew mi nañ bokk mais li ñu war a encadrer la ci yenn position yu sensible yi yenn position d'influence yi nga xamante ni dañ ko naan fii mënoo fi def sa famille comme ni mu nekkee nga nekk directeur ñu indi comptable sa wet mu nekk sa mbokk wala sa jabar dafa nekk sensible donc loolu jàpp naa loi bu ñu ko encadré loi bu war a mën a baax la d' abord ci président de la république mais aussi ci askan bi ak ci alalu askan bi parce que li ma jàpp mooy que loi buy protéger président de la république ci ñaari anam la di ko protéger maanaam ci influence yi nga ne famille am mun nañ ko am ci moom pour di ko laaj ay position protection la ci moom ci bu nga xam ne jeexal na nguuram parce que sûrement dina bu paree dinañ ko dina mën a taxaw ne am ah, man de defuma fi lii ak lii parce que boo ko deful parce que position yooyu nit sa mbokk bu ci nekkee def ay jalgati daara daara nag deret ak mbokk moo foor boobu pour nga ñàkk a jóg jéem a def gàllankoor ci yoonu euh, justice luy jafe la alors donc ci nit ñu bëri duñ ko mën en tout donc pour que ñu am taxawaay bu dëgër taxawaay bu baax waaw ah, donc dimbale président de la république nga xam ne loi bi nag du loo xamante ni ñiy wax ne day viser Macky Sall yaakaar naa ne dañoo déggul sax droit parce que caractère général lu bi c'est pas parce que danga nga ne de la république que da ngay viser Macky suba keneen la ñaata texte ñuy wax président de la république président de la république amul sant tey Macky Sall la suba keneen lay nekk te président Macky Sall nag fukki weer ak juróom moo ko desee ci réew mi te amul droit présenté wu. kon kay loi boobu te teg réew mi nag ay loi yoo xamante ni sax jamono tubaab lañ ko adopté woon ñu ngi fi jàpp naa daal loi boo xamante ni dañ ko war a encadré nag loi boo da nga ñëw rek teg ko rek ne ko jël famille président sànni fële ne ñoom bokkuñ mi déedéet mais dañ koy encadré ba yenn position yu sensible comme jël sa président jël sa rakk def ko def ko con con euh, caisse de dépôt et de consignation foofu dafa sensible loolu loolu lu sensible la donc loolu euh, euh, la amul ma ci wax